daal fi egg si démb à sept heures hmm. fekk naa yi nag ñu ngi ci taxaw ah, consulat bi woo na ma démb nee na dina fi ñëw tey waaw hmm. exactement ñoom bu ñëwee ñoom daal la ñuy ñooy seet man daal li ma gën a bëgg mooy ñu rappelé ñu li ma jàpp jàppale rek koor yi ñibbi quoi waaw hmm. loolu daal moo moo gënoon nekk sama yitte comme comme am ñoom nee nañu loxo da ci a ah comme nee nañu am na lu ci nekk kay loolu c'est normal c'est normal loolu kay ci la ay jik xëy sax foo mu ma vérifier ko ba ma xam ah, lan lan qu'est-ce qui kay ci la bokk ñu doon wax ci jibi jibi am na ay xarit tamit ma jot a wax ak nenañ mu ko xamne ku bëggoon liggéey la étudiant la woon yow loñ mën ne wax ci jibi jibi moomu ñan ñaata at la war a am ak kañ la dem états unis jibi 90 la judd allo waaw maa ngi dégg waaw allo waaw jibi mi ngi bac mi ngi am bak senegal bak la amee bak la am senegal lima Limamou Laye bo mu ñew fi quelle année non de toute façon amna fi 8 ans hmm bo oh, mhm. jangana ba am licence ba commencer liggéey ba am liggéey bu baax sax mhm. waaw am nga jibi moom hmm, bi mu juddoo ak léegi ni bu ma woon sax mu gudd fan ma woon mosuma xalaat ne ci bi dina gudd fan. ndax lan loolu parce que nit ku baax la nit ku baax la. nit ni mu baaxee sax mënuma la ko wax. waaw man man mosuma problème ak jibi mhm. waaw. fekkee xam nga ko wala xamuloo ko ah njool njool la boo xam ne fu mu taxaw rek dañ koy xool gis taxaw mhm. du xam nga ko wala xamuloo ko non xam ma ko mais xam naa ay xaritam te gis naa photo yi ma yónnee ci moom voilà ji daal fu mu taxaw il faut ñu xool ko waaw loolu ku nit ku mel noonu pour mu gudd fan day jafe ku discipline musuma gis ku melni mom ndaysan sa sama dom la bo sama dom la bo xamne vraiment hmm. xana mom rek amul xawma nan la koy mom rek amul ci dom wala amna hmm? amna yenen frère mom waaw amna yenen frère amna yenen frère waaw mo mo ci gëna jang mo len di jappalé ci lu bari aussi mo nekkul sa taw yaayam mom ah. moom moo nekkul sa taw. non moo non nekkul sama taw moom sa sama quatrième doom la moom quatrième la. kon daal yow yow li ngay xaar si si état bi mooy ñu jàppal la nga indi si njaboot yi sa wet fii ñu denc leen fii moo la gënal daal jamono yi. waaw ak li nga wax ak li nga wax noonu. moo xam. ma xam affaire bi comme police yi ci ñoom ci seen bopp ñoo ne loxo mi ngi ci affaire bi waaw nga loolu moom du du du du lu ñu du lu ñu du lu ñu war a bàyyi n'est-ce pas mhm. voilà loolu loolu mooy ci kii man nag ma doole njanguma. Mhm. bu gars yi ñëwee rek ma féete seen ginnaaw xam nga ñaata personne ñoo ci dee xam nga ñaata personne ñoo ci dee juróom waaw juróomi yi moom jibi waaw ak jabaram mami ak jabaram ak soxnam waaw soxnam waaw waaw ak doomam mm-hmm. ak sama beneen doom bu jigéen ma mm-hmm. nga xam ne moom ak jibi ñoo bokk ndeer bàyyi ah kan la mm, kumba jool kumba jool waaw doom bi ñaata moom. doom bi ay neuf mois la war a am normalement. Hmm, ndeysaan. à peu près waaw ba doomu jibi bi defe naa tuuti la war a manqué defe naa war na am ñaari at. Hmm. doomu jibi bi war na am ñaari at. ndeysaan moom tamit jigéen lool. mooy cinq personnes. ja jabaru jibi bi aussi sama doom la parce que papam moo topp ci u jibi yaayam sax laa yërëm. yaayam man sonn naa ci mais yaayam laa gën a yërëm. parce mhm. que affaire bi bi ma amee ak léegi noppiwul mosuma mënuma wa fexe ba wax ak moom. Mhm. waaw parce que moom rek mooy doomam bu góor ci des yëpp ay jigéen lañu waaw te ku ko doon jàppale la trop